suma salaatu alal muxtaari min mudarin xayril bariyati min baakin wa mubtasim lil mustafa kulliyati kulla sanamat an salaatan wa hababil asana ya rabbana habli bi haqqil kawsari yumnal hayati wa ujuri kasiri amin rajaw naa ila naar falli jannaati kawsara sharifun karimun inna tuuba wa kawsara asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julit yi bokki taalibe yi bokki réew mépp bokki àdduna seenu taalibe di mbokkum taalibe ci ñenn ñi Moustapha Seck Baye Fall si di moo leen di nuyu fii ci liggéey bi nga xamante ni Cheikh Mamadou Mountakha mu xalifa généralu Mouride yal na fi yàgg te wér da koo jox Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général Baye Fall yal fi yàgg te wér Serigne Cheikh Jëmb woo mboolem ñi mu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall. ngir ñu yéwénal liggéey bi moo leen di nuyu ci ndigalul sang bi toog di Cheikh Sidi Moukhtar Fall mu Cheikh Modou Moustapha Fall Cheikh Modou Cheikh sëñ Sidi Fall tam dina nuyu ci turu Serigne Amdi Khady Fall moom Serigne Assane Fall maam Cheikh Ibrahima Fall ah, liggéey bi de moom noo nga ci sëñ Cheikh Jëmb Fall mu ngi ci am mboolem rakkam ñu bokk Cheikh Ibrahima sëñ Sidi Muxtaar Fall mii nag ak Aziz Fall sëñ Muxtaar Fall ñoo fi nekk sëñ Amdi Kadi Fall ci waar Kawsara Fall suba gu ñu xëyee ñu ngi ci gis ngeen liggéey bi si mu toll liggéey la boo xamante ni nii ndimbalu tey ngi ci ndimbalu ëllëg nga ci ndax day barab bu tedd di barab bu sell ndax barab ab liggéey buñ la nee borom Tuuba fii la ñu feeñoo ci jamono waxuma nag fi mu feeñe fi mu nu feeñoo ci jamono diggante ak liggéey bi matul téeméeri mètre ñu ne ñaari doomi sëñ Touba ñu ñu tudde ñaari doomi seen Touba fi ñu tëdd ak barab bi matul téeméeri mètre muy Cheikh Mamadou Kabir ak sunu Faati Balla di ñaari doomi sëñ Touba buñ la tam maam Mor maam Jaara fi mu tëdd ak barab bi matul téeméeri mètre buñ la nee sëñ Mbusoo bi fi mu tëdd ak barab bi matul téeméeri mètre kon barab bu sell la ngi noonu nii barab boobu nag la sëñ Moodu Muntaxa jox sëñ Cheikh Jëmb Faal sëñ Cheikh Jëmb Faal woo ci ay rakkam dina am jumaa jumaa ji dégg ni ko sëñ Muntaxa santaane na am benn sooroor sooroor boo xam te ni day kennal kennu yàlla gi boo duggee ci biir yàllaat nag sooroor boobu day kennal kenn Muhammadu Rasulullahi min nuurihi kullu noorin saata si bi sana nooru nu joomun wa nooru samsi wal xamara ku jëlul leer ci rasulaay nga ko jële waaye kennal googa day kennal kenn borom Tuubaa gi ci rasulaay waaye kennal googa day kennal kenn maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiin ci borom Tuubaa Xaadimu Rasuul kon nag ñu ngi ci liggéey bi sëñ Cheikh Jëmb Fall lu mu am moo ko rakkam ak taalibe ak soppe ak wëllëre yi dina ko ci def lu ñu ko jox dina ko ci defal lu ci waay bëgg ci lu baax nag ci aw yiw na ko ci fos rawatina nag bi nu ñëwee ba toll ci jamono bii ak weer yi nu nekk muy weeru rajab ak lii di lëmbe jamono te muy la xew te muy mbas ñii tudde ko balaa te daana am am balaa daana am ci jamono Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba nag daan wutal nag ay pag bu téef ak ay médicament yu koy faj di ànd ak docteur tubaab yi ko daan faje nag ñuy faj ñii nekk ci mu nekk ci baatinam wa ab tàq fi ma ateeka lahu daara laaxirata wala tasana si bakki min dunya sayr dox baatin dox waaye baatin suñ tubaab bi ñu pikir yamoon a joxoon nag ba léegi pikir yu aay ci balaa la toog naa soxna bintu jenn mu si saa di wajur si Abdou Aziz Fall si Moustapha Fall mii yàlla fi yàgg ci ak rakkam magam ju baax ji ak i magam ak rakkam ak mboolem donga yi soxna Bintu Jenn nag doom si Isaa Jenn moog sëñ Abdou Latif Jenn mii di xalifam Jenn ñoo ñaari wajur wu góor ak wu jigéen yal na yàlla yeesal yërmande moom soxna Bintu yokk ay mayam mu ne ma Moustapha man ko Fall ba ma ko waxee léegi mat na fanweeri ak mbaa mu jege ko lool. mu ne ma dafa am bis sëñ Muudu Moustapha Mbakke taaw borom Touba alayhi salaatu wasalaam sëñ Moustapha Mbakke ñëw njenne ne ana sa baay Isa ñu ne ko sa baay Isa di daa génn ñu ne ko wàccal mu ne damay jàll nee na ci rek sëñ Moustapha Mbakke wàccul ca ma taxaw mu ne day jàll ñu ne ko noonu Mbakke dafa am tawat bi fi ñëw ci tund wi day wàlle te tawat di gaaw na ci wàll te tawat di gaaw na ci faat tawat di gaaw na ci làggal te am nañ ci njàqare ne fi Moussa Mbacke ni nañ ko indil aw këyit ak bindukaay nañ indi këyit ak bindukaay mii mu bind aw bëyit daal di joxe ne koñ ñu bëyit wii ku mu fekk tawat ji dal la su ko jàngee ñu wax ko mu jàng ko tawat ji day wér suñu ko jàmbee jox ko mu naan tawat ji day wér ku mu su ko jàngee du ko dal su suñ ko jàmbee jox ko mu naan du ko dal soxna Bintu jenne ñu daal di bind bayit woowee tasaare ko ci biir njenne hmm. ma ne ko soxna Bintu nuy bayit wa mu ne wanaa jinaa min sërri haasal aami wa sërri maa fiihi wa baarik aami ma ne ko soxna Bintu mu ne faal ma ne ko bayit woo di mu ngi ci xasaayitu wala tasal mukrima naa fii Tuubaa mu ne ma Moustapha man ko faal mu ne ma man Bintu jenne de xawma xasaay gu ma ne waaye keroog bu ko suñ Moodu Moustapha Mbacke waxee keroog laa ko mokkal waaye bayit woowee keroog ba si saam Mbacke demee ñu tàmbali ko bind di ko jàmb ñu jox ñi nit ñi naan ñi di ko wax nit ñi di leen ko sax ñu di ko wax seen làmmiñ ku mu fekkan tawat ja dal la da ngaa jóg ku mu fekkan tawat ja dalul la fa naawe mhm. ne kon nag loolu moom ab ab ab ngoog ab piqûre ngoog ab vaccin ngoog bu joge ci borom toba khadim rasul ñew ci sengu Moodu Musaa Mbàkke moo ko bintu jenum Seex Isaa jenum wax mako ci néegam wana jinna bayit wa min sirri asal ami wa sirri ma fihi wa baarik aami loolu bayit woowu day fak bala di feng mbass di naat am rew kon mu ngoo kon sëñ Sidi Muxtaar fal yalla yalla guddal fan yi wéral ciri ni sëñ am ni kat di fal di waxit day wax ni bu ngeen ma deti liggeel wala fu ngeen di liggeel serigne bi wa waa Kawsara ni ngeen ma ñaanal waye bu ngeen may ñaanal nak ñaan gi na ngeen ci jital ñaari kilifa yi nek ci sama kanam sama ñaari kilifa ci sama kanam Cheikh Mouhamadou Mountakha bak ak seigne Cheikh Jëmb Fall ne bu ngeen ko defé dal mom ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal seigne Cheikh Jëmb Fall ñaanal ma lu ngeen ñaan boye bu ngeen am ci yaakar noo ngi ñaan nak ci barke bi rawati bisub seigne Fallu bi nga xam Fallu sëñ Fallu mooy lépp weer wi daal lu ci waa ñaan dina am mbas mu ne jëlee na ko fi balaa bu ne jëlee na ko fi xiiwal gu ne indi na ko fi nu ngi ci bisam nag nu ngi ñaan ci barkeb sëñ Fallu mi nga xam te ne mooy borom weer wi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yàgg fi ak borom njóobatu sëriñ bi sëñ Tuubaa gépp sëñ si jëm faal yàgg fi ak wér ak mboolem taalibi sëriñ Tuubaa yëpp Cheikh Faal mooy moo di taalibi ak mboolem taalibi ci barkab rakkam yi sëñ am na ka di faal mi nga xamante ni Cheikh Sidi Moukhtar bi fu mu ne moom la fa nekkal ak si Abdou Aziz ma ak mboolem njaboot gi ñu yàgg fi tiga tiga ñu jiitu jërëjëf jërëjëf Fall waaw. waaw sëñ bi leen jaajuwaat bu baax baax baax waaw. sa bopp lii moo war. Mhm. Mhm. topp saa mhm. waaw loolu baax na. te la nga xam tànk nga xam mooy tànk bu baax. yoo xam nekk. ku ne war nga yar sa bopp. waaw xam la war xam la yàlla si bu baax yoo rafet. bu fekkee ci la bu baax. waaw dégg nga nan bokk ndey bokk bay bokk lépp. dégg nga ndax noo bokk Seex kon noo bokk lépp. Seex Faal mooy lépp. noo ko bokk ñu ne baax a baax te bëggante jàppante baax a baax fonkante bu baax a baax ngeen Seex Ibrahima. ku sa am naqar sa naqar na na na na na du mu rom. waaw bu dee bànneex ne bànneexu ñëpp bu ci boo ko dee boo ko bàyyi lii mu gën tànk yi nga ne woon tànk sa yëpp rek moo waral suñu tànk dañu hmm. ko def suñu bopp waaw jàmm nan ñaan